revoir la organisation nañ maanaam organisation bu ñu toll nii euh, la plupart ñu nekk si fédération bi ñu est ce que loolu kan bi gis nañ ne li ñuy li ñu mën a wax ci kan bi mooy gis nañ benn organisation diggante ministre des sports ak euh, fédération bi mooy euh, Augustin Senghor ak ñi moo àndal loolu lu koy waral mooy gis nañ ni man ko wuti ndam li mooy slogan bi ñu wax ci AG bi moom lañ bëgg appliquer pour ñu mën a dem ci Coupe d'Afrique des Nations bi manko wuti ndam li boobu ñun ñëpp war ko mën a def slogan ñun ñii ñëpp muy journalistes yi ak sénégalais yi buñ mankoo rek yaakaar naa ndam bi war na mën a dëgg organisation bi ministre des sports voté nañ budget bi dimanche passé à l' assemblée nationale kon loolu yëpp c' pour mettre les joueurs aussi les journalistes ou képp kuy mën a dem Cameroun pour mën a nekk dans de très bonnes conditions je pense que loolu moo ko waral. kon nag dama def benn micro c'était normal que mu bokk ci liste bi te tey gis nañ bokkul. oui évidemment man aussi j'ai eu la chance de rencontrer euh, Amdi Moustapha Faye def naa moom émission mais que souci am yëpp c'était pour Pape Alioune Ndiaye ñëwaat mais loolu wanewul ni moom li mu bëgg wala ñun li ñu bëgg loolu la coach Alioune Cissé bëgg peut-être am na ay raisons am yi tax pap Alioune ñëwul mais ñëpp ñi ngi foog ni li ko expliquer mooy li mu nekk Qatar di jouer que looloo tax dafa maanaam niveau am dafa wàcc parce que dafa jugee Angleterre daal di dem euh, Turquie soo soog a ñëwaat Qatar ñu jàpp ni loolu baisse de forme moo ko waral mais bu doon man sama jàngatu bopp moom waroon na mën a revenir ci groupe bi mais aussi gis nañ éliminatoire yi ak match yu fi jot a passé yëpp Pape Alioune présent wul ci liste bi kon est-ce tey c'était très logique mu convoqué ko tey te bàyyi ñeneen ñi nga xamante ne mi ngi ànd ak ñoom boobu ba tey man côté boobu laa ko gisee voilà merci beaucoup. ñoo ngi noonu ginnaaw ba Aliou Cissé defee lii di liste 23 jours yi euh, ñu taxaw kii di Arma Kandé journaliste de TV Arma noo gisee maanaam liste bi tey affiché waaw ah, je pense que liste bu mu euh, mooy y' a pas de surprise ah ñu ñu ñu doon xaar ñu ngi fii parce que peut-être ñi ñoo doon lam-lamee kii day ñëw kii du ñëw mais moom xamoon na depuis des mois ou même depuis des années moom xamoon na ban groupe groupe depuis un an on va dire xamoon na ban groupe lay compter pour Coupe d'Afrique bi parce que ossature kenn du ko dindee noonu donc boo xoolee. Euh, ñu fi nekkoon presque 2019 yëpp ñu ngi fii sinon am na ay nouveautés am na quand même ëpp ëpp fukki jours yoo xam ne c'est des ça va être d'Afrique des nations mais loolu je pense que euh, ñooñu même bu fekkente ne bii mooy nekk seen première coupe d'Afrique des nations mais yàgg nañ di ñëw équipe nationale di saafante ak joueurs yi donc ñu ngi muulewu ci euh, état d'esprit bi nekk ci groupe bi donc je pense que soo xoolee sax presque question yi y' a pas eu beaucoup de questions par rapport à ça pourquoi tel n'a pas été appelé ñu ñu doon xaar part blessé ku mel ni Krépin wala Sabali euh, bu ñu xoolee aussi si liste bi euh, y' a pas de locaux peut-être si réserviste am na ay locaux parce que réservé il n'a pas li mais y' a un a soulevé la question en citant deux noms euh, Moutaru ak gardien Casa Sport bi donc je pense que liste bi c' est une liste normale. liste bi c'est une liste valable am nañu ay soldaar yoo xam ne mun nañ dem défendre couleur yu Sénégal léegi li des kay mooy ñu ñaanal comme man may poser question euh, dama ko njëkk a ñaanal ne euh, ñu def tout ñu ñaanal leen pour que ñu épargne maanaam ñu bañ am ay gaañu gaañu. ñu bañ a am feebar comme mbas mi ñu bañ am aussi ay carton yoo xam ne dina leen empêcher peut-être ci tel ou tel match ñu joué donc euh, je pense que euh, loolu daal moom lañ mën a jàngat ci ci liste bi. mais gis nañ tamit maanaam comme sànq sànq wax sànq si wàllu blessure yi Ismaïla mu toll moom dafa dafa blessé te gis nañ Sabaly tamit même bu fekkee blessé mu ngi ñëwaat Ismaïla Sarr tamit mënoon na bañ a bokk si si Euh, joueur yu mel ni Ismaël Sarr ak Koulibaly par exemple ñoom même pas blessé mais Koulibaly c'est moins dangereux le coach l'a moom normalement même bu fekkee day raté peut-être premier match bi da lay raté. mais gis nañ aussi fan yii yëpp ci internet bi image euh, yu wone que ne Ismaël Sarr reprendre na li di liggéey donc. moom il a repris à à à la la rééducation cela veut dire cela veut dire que euh, même bu fekkente ne mënuñu ko am ci premier tour bi mën nañ ko séntu ci deuxième tour bi comme xam na ne c'est un joueur important dans le dispositif donc loolu moo tax mu woo ko. voilà donc euh, ñu am yaakaar que ne aussi comme lu mu koy euh, lu muy séntu ci moom mu am ko c'est-à-dire que. même bu fekkee day raté trois premiers matchs mais au moins deuxième tour ñu gis on Ismaïla Sarr valide parce que on sait que il est encore décisif euh, dans les moments importants yoo xam ne euh, mën ngañ ko ci xaar. dernière question rek mooy kii di Pape Alioune Ndiaye euh, ñu bëri yaakaar ne peut être waroon a bokk si liste bi parce que tamit gis nañu milieu terrain Sénégal à chaque fois day am problème te moom mën na leen aider lu bëree bëri. bon xam nga man souvent dama a ko wax nga joueur boo xam ne am na expérience. am na cawarte gi am na xarañte ne xam na am na aussi vraiment l'envie de se donner à fond mais souvent yooyu c'est du domaine de l'entraîneur moom moo xam lu tax woowul kii lu tax mu woo diw. donc man loolu dama koy bàyyi souvent entraîneur bi mais je pense que globalement ñi nga xamante ne ñoom lañ woo ñoom lañ woo nañu am confiance si ñoom ñu ñaanal leen ñu am yaakaar ko ni incha allah bu ñu ñëwee dinañ répondre à pas à 100 cent mais à 200 pour cent mais aussi nañu xam ne euh, l'équipe nationale c'est pas vraiment quelque chose doo xam ne lu léger la képp ku ñu woo équipe nationale. nga xam ne am na ñeneen comme ki nga cité Aliou Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biti mënoon nañu ñëw te ñëwuñu ñoom ñoom la entraîneur bi wóolu kon nañu def tu pour joxe wu deux 200 pour cent wala à 300 pour cent. merci beaucoup. ak taxaw ak Ngiri maanaam 23 27 euh, jours yoo continuité la par rapport ak li nga xamante ne ñu ngi ko doon xaar amul benn surprise boo xamante ne gis nañ ko ci ñi mu àndaloon doon defante li nga xamante ne moom mooy qualification coupe d'Afrique bi ak coupe du monde ñooñu la Aliou Cissé yóbbu et gëm naa ne amul benn surprise boo xamante ne bi am nañ ko fi dinañ mën a cadre yi nag ku ci mel Lamine Gassama actuellement nii amul club euh, Sabali dafa blessé ak nga xamante ne Moustapha Wagué nekkuñ ci forme yoo xamante ne bi war na tax ba Aliou Cissé war leen a yóbbu ci li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique des Nations. mais sànq yaa ngi na wax si wàllu blessure te bu xoolee kii di Ismaïla ak kii di Kalidou Koulibaly ñoom tamit dañoo blessé te fu mu toll nii woo na leen pourquoi pas kon war na woo na taw commencé na touché sax il paraît du ballon mais Ismaïla Sarr coach bi wax na ko léegi et su wartu mun a bokk ci coupe d'Afrique des nations gëm naa du ko convoqué fu mu ko fekk joueur bi gën a apte gën a jàpp pour mun koo aider parce que nag Ismaïla soo ko dee seet cadre la équipe nationale moom ak ki nga xamante ne moom mooy Kalidou Koulibaly. mais si wàllu organisation lay dem fi yi te la plupart ñoo xam ne ñoo ngi si ñoo ngi si euh, fédération bi peut-être ñoo ngi wut léegi mairie est-ce que loolu amul benn yàqanteel boo xam ne mën na am si kaan bi. ah indispensable dans la vie nga euh, c'est que ni euh, président président fédération bi day ut mairie Gorée président Djibril Wade bu ligue de nga xamante ne moom mooy mairie fële ca gël te ñaari tali benn tali. nga xamante ne bii aussi moom mooy Matar Ba sax ministre des sports des Hautes-Mers Fatick. kon daanaka ñul ne indispensable euh, dinañ jéem a xool naka lañ koy gérer rek par rapport ak euh, ak élection locale yi. kaaw dafa benn kaaw spécial muy kii di Pape Alioune Ndiaye Sénégal yi bari ko mooy def micro-trottoir gars yi yëpp jàppoon euh, moom dafa war a bokk si si liste bi est-ce que loolu peut-être ak suñu milieu terrain peut-être mën nañu dimbali bu baax baax. bon Pape Alioune Ndiaye kenn du nattam le talent am mais est ce que yaakaaroon ngeen ni dina ñëw parce que gëj ñëw aussi euh, na jafe wala doon na doy waar ne moom mooy coach bi woowaat ko ci équipe nationale bi man nag xaaruma woon benn yoon ñëw Pape Alioune Ndiaye ak ñëw ki nga xamante ne moom mooy Karaamou. boo benn conseil ba jox Aliou Sène muy bon conseil moo koy jox rek mooy xanaa góorgóorlu jéem def de telle sorte que ni euh, def lu xarañ ba équipe bi fañ koy xaar ñun ñi mën ko faa jërëjëf de l'apprentissage c'est pour que ce, ce groupe se familiarise avec cette compétition le groupe s'est familiarisé avec cette compétition c'est dommage pour ces ces gens c'est, c'est vrai que c'était des cadres comme vous le dites mais ça n'empêche pas que le groupe doit vivre doit être compétitif et doit être euh, à la hauteur de l'événement. une dernière question euh, pour la libération des joueurs de la Première Ligue. Euh, donc vous avez entendu la réponse de La Cannes est située à une période où il faudra que l'Afrique commence à réfléchir. C'est difficile. Mais il faut, il faut faire avec. Et compétiteurs, ils sont compétiteurs. Il les trois jours, qui se libèrent, euh, quitter l'Angleterre, venir jouer la Cannes. C'est vrai a besoin d'avoir son pour euh, les automatismes et Mais comme je dis, le groupe là n'est même à 24 heures quand ils arrivent, en bon compétiteur, ils sont de s'adapter de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, euh, à bon moment.